leen ko tàllal loxo boroomam ñaan ko soxlaam lépp lum ko ñaan yàlla dina ko fajal ah njëriñ li nag njëriñ lu foora foor la am na ñoo xam ne dañ koy nëbbu ji sax ci seen biiri kannaash bu ko defee nag waaye comme lu baax la lu am njëriñ la te jublu ci yàlla la ak ñaan ma di ko baaxe sama bopp di ko baaxe samay mbokki taalibe eh, képp koo xam ne eh, maanaa jot nga ci daal nga bay Assalamu aleykum aleykum ye Assalamu aleykum aleykum ye Assalamu aleykum aleykum ye Assalamu aleykum aleykum ye bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën ti door nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكو يتدين درج أهل الصفا والوفاء من لسين بكم طالب أبو بكر بقى التجاني ما لين دي نيوتا زيارة دي لين دوكيل هدية بسو أجمعي تيجينك mom la len bëgg baxé insha allah muy loo xam ne ñu nekkal njëriñ ñun ñëpp euh bo démé ci téré bi ñuy wax fawaidul imam ash-Sharji da fay wax fofu ben kayfiya pour fajj aajo kayfiya bo xamné dal bu ko julit jëfëndiko yàlla dina fajj aajoom te ñun ñëpp am nañuy ñuy aajo kayfiya bi ñu ko toxale ci téré bu ñu wax adabul fuqara cheikh abil qasim al qushairi borom ar risala al qushairi te ñepp xam ko ñepp nangul ko ci walu wilaya ak tasawuf mo liggéey téré mu ne képp ku bëgg aajoom faju ak nag lu mu mën a doon na jàpp njàpp lu bees bu noppee mu julli ñeenti rakkaa bu defee ñaari ràkka mu taaya sëlmal mu defaat yeneen ñaari ràkka taaya sëlmal maanaam ñeenti ràkka yi dina ci def ñaari sëlmal ràkka bu njëkk bi gannaaw bu jàngee faatixatul kitaab fekk mu ngi taxaw mu teg ci aaya bi rabbana aatina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rachada fukki yoon mu daal di dal di siggi sujud ñaari sujudam taxawaat ci rakam ñaarel bi ginnaw bu jàngee fatiha bam jeex mu ne rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mu baamtu loolu fukki yoon def nim defoon ruko sigi sujud sujjootaat def taaya sëlmal bu sëlmalee mu jógaat taxaw indi ràkka ñetteel bi gannaaw bu jàngee fatiha mu ne wa ufawidu amriya ilallahi inna allaha basirun bil ibad mu baamtu ko wa ufawidu amriya ilallahi inna allaha basirun bil ibad fukki yoon dal di ruko sigi eh, ñaari sujjoot yi jóg taxaw bu ñëwee ci ràkkaa ñeenteel bi gannaaw bu jàngee fatihatul kitab mu ne rabbana atmim lana wa waxfir lana innaka ala kulli cheyin jàng laay jooju fukki yoon ko defee mu def ni mu defoon bu sëlmalee nag gannaaw bu sëlmalee ñeenti rakka yi jeex na mu sujootaat beneen sujoot bu bokkul ak sujoot yi mu doon def ci rakkaay bu sujootee nag mu sëgg ci suuf di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin bamtu ko ñeen fuk yoon ak ben bu eggale nak musulmal tok toog jublu penku tàllal loxo boromam ñaan ko soxlam lepp lu mu ko ñaan yalla dina ko fajal ah njeriñ li nak njeriñ lu fora a la amna ño xamne dañ koy nëbbu sax ci sen biri kanash bu ko defé nak waaye comme lu baax la lu am njëriñ la te jublu ci yàlla la ak ñaan ma di ko baaxe sama bopp di ko baaxe samay mbokki taalibe eh, képp koo xam ne eh, maanaa jot nga ci daal nga bàyyi ci xel te xam ne faayida bu am solo la bu am njëriñ la te am na cëslaay te itam tariqa bi nangu na ko magi tariqa bi nangu nañ ko dañ koy joxe di ko jëfandikoo ndax eh, mom lepp rek mu ngi ci alquran ak sunna mu ngi delluwaat ci julli ak jang alquran ak ñaan te ayatul quran ñenti ay yi mu fi wax yeb ci alquran ay ñaan la yo xamne yalla mo len indi ci bir alquran mu melni yalla dalay won kon boko ko ñaan nan nga koy ñaané la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min kuku koku yonent bi lim ci wax ci xadis yu wér bëri na ba wax ne lépp lu ko nit ñaane sax yàlla dana ko nangu ba am na sax ñu ne mooy ismullahi al azam te yonent wax na ne jaam bi balaa gën a jege yàlla rek dafa sujoot kon boo sujootee baamtu ñaan gi ñeent fukki yoon ak benn ci sujoot wax dëgg yàlla am na yàlla musale woon yonentu yàlla yunusa dégg nga euh, fastajab naa lahu wa najjaynaahu min alxammi yàlla ne nangul naa ko ba pare musal ko ci problème yi mu nekkee woon wa kadalika nun ji dégg nga niki noonu laay musale kon euh, bu bu dee def nga ko daal incha allah da nga ci am yaakaar bu rëy yal nañ yàlla euh, dimbale te euh, nangul ñu te suturaal ñu incha allah lii daal mooy laa biire gi nga xamne tay ji ci aljuma ji moy sen hadiya yéen bokk talibe yi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi balu ñëpp xaq assalamu alaykum